gis nañu ni France deful benn yoon ay effort ngir rek dal di dakkal yooyee faat bakkan wala sax yooyee manifestation waaye France dafa dal di continuer di jox ay armes lii di gouvernement bu Sénégal di ko gën di dooleel tamit ba tey jii moo ngi nii dalal kii di président Macky Sall te deful benn déclaration boo xam ni day dal di arrêté manifestation yi boobee ba léegi donc France mënuñu ko duut leneen lu dul dafa nekk complice ci crime contre l'humanité